yaa ngeen jëf mbokki internetu Dakaractu ñi amaat mbégte di leen talalaat say su ne ci seen rubrique découverte commune bu Golf Sud tey nag ci lañ nara a waxtaanee ndax xam ngeen ni ñi ngi ko taxawal ci le 30 août 1996 boobu nag ki ko njëkkoon yor mooy mbay Ndiaye daanaka ci atum boobu la ko yor ba ci atum 2001 ci un bi nag ci la benn délégation spéciale daal di ñëw jël mairie bi ci nga xamante ni moo di mbay Ndiaye daal di koy jox ki nga xamante ni moo di Moussa mbay laataa ñuy organiser yeneen élection nag ci la ko Moussa mbay moomu yor diggante 2001 ba 2002 ba si 2002 boobu ñu daal di koy amal nag biñ ko amalee ki ko gañe mooy Serigne Mbacké Sylla

diggante 2014 2014 euh, boobu ñi defaat élection mu gañewaat ko mu yaraat ko nag ba 2014 euh, boobu ba 2022 bi ci la euh, daal di wàcc ki ko wàccee mooy kenn ku dul Khadija Mayakor Diouf bokkun ci Pastef moom Aïda Sow Diawara nag jàngalekat la woon maanaam ab jàngalekat moo yoroon mairie bi nekkoon itam député ci douzième législature comme ci quatorzième législature bi itam tay nak damay ñëwaat defal leen benn mise à jour pour un peu au-delà de l'aspect politique ngeen xam kan mooy Khadija koor ki nga xamante ni nii moom moo yor mairie bi waxtu yi ñuy wax ak yéen nii maye koor nag mi ngi jóge ci famille bu modeste euh, waajuram bu góor nag ñu bëri xamoon nañ ko mi ngi nekkoon ingénieur euh, recherche yu mu doon def yu bëri daanaka ci suuf si la ko doon def wéyjuram bu jigéen nag nekkoon itam koo xamante ne ni day dimbali jigéen ñi monitrice te di accompagner jigéen ñi ci lépp loo xamante ne ni daf leen di développé loo daanaka ñaari combine yooyu nag euh, dafa am loo xamante ni daf ko def ci Khadija Mayakor mu jàng nak ba am bak esam yar la gal ko mudem dem eh, ci France avant France bi sax mu Maroc def li nga xamanteni ni science de management eh, bi mu fa joge nak eh, mu France bi mu demé France danaka 2005 ba 2006 mu dem master 2 ci ingénieur et management ci euh, université professionnelle bu nekk Calomar fële ca France ba ci 2006 euh, 2007 mu demaat master 2 waaye droit des transports option sécurité et sûreté fële ca université sciences sociales bu Toulouse. moom nag ci jaar-jaaram bi yëpp dafa nekkoon koo xam ne dafa doon ñafe ndaxte yi da doon jàng di liggéey en même temps doon nekk serveuse ngir rek mën a gérer yu bëri ci euh, dundu étudiant bi nga xamante ni mi ngi ko doon jun dund fële ca France. avant l' aspect politique may ko tamit ci yeneen association bëri na lool euh, lu mu fa teg tànkam. bokk na ci membre fondatrice di plateforme INIDEV di initiative pour le développement de l' Afrique ndaxte moom si combat am lenn rek la gënoon a fësal mu di autonomiser femmes yep manam dolel len ci lolou ci la nek membre conseil d'administration ci l'association association des femmes bu mag bu nek fële ci Pikine mu itam volontaire ci ligue sénégalaise de lutte contre le cancer LISCA euh, di association bo xamante ni kuréel bu mag bo xamante ni xam ci cancer fi ci Sénégal mu nek fofu di coordonner euh, ay projet de reboisement ak de collecte de fonds ngir rek mën a toxal association 2007 2008 mu nekkoon une ONG bu ñuy action pour la Fin de la France foofu nag moom la ñuy chargé woon ki nga xamante ne nii mooy utu lépp lu euh, financer projet 2009 ba 2010 mu nekk chargé de programme de l'agence nationale de l'emploi pour les jeunes Khadija Mayakor nag dafa mës a bëgg goxam nag it bëgg loo xamante ni tey doxal ko goxam yàgg na am taxawaay yooyu ci fi nga xamante ni ni foofu la dëkk ndaxte lu mu dem dem daaw fàtte fi nga xamante ne ni foofu la màggee loolu nag tax na bi mu toogee ñi gis ni lu mu njëkk a def mooy dafa lancer plan de développement communal ngir mu xool ban yoon lay topp ngir doxal goxam mu lancé tamit li ñuy woy économie sociale et solidaire jagleel ko jigéen ñek ndaw ñi ngir rek mën leen rendre autonome ñu mëna démal seen bop am lo xamanteni mën nañ si japp ba ñepp mën ci gis njëriñ teef mu lancé projet écologique et de reboisement bo xamanteni ni ay euh, euh, garab lay jël euh, xol fi nga xamanteni ni soxla nañ fa défarat yañjal ko mu mu samp Karab. ay am lu ñu woowee participation citoyenne et gouvernance locale programme boo xamante euh, au-delà de mag yi ndaw yi lay xel am sécurité urbaine et modernisation des infrastructures maanaam defaraat école Talat lamp yi koñ yi gëna a leer yokk sécurité bi karangé bi té ma japp ne amna aspect bu sax bo xamante mo moom si intéressé moy défar école yi parce que japp na ni jafe-jafe école yi di dundu dafa wara a ndax école lu am njëriñ la ngir askan dox jëm ci kanam ci lolu ñu situé ci itam activité sportive muy coupe du maire bi nga xamante ni lancé nako ci 2024 bi au delà de l'aspect politique baax na aussi euh, ñiy gertu ci mbir yooyu parce que Khadija Mayakor lu ci bëri ñu bëri xamuñu ko lu dul ngir digganteem ak Sonko euh, politique bi nga xamante ni fës na si lool waaye am na yeneen compétence te am na leneen loo xamante ni maanaam bëgg-bëggam la tey moom la la fësalul sax mën naa ne waaye mi ngi koy wane ci ay doxalinam ci ay programme peut-être nag ñu bëri dañoo accentuer wu jël xool aspect politique mais baax na aussi ñuy teg politique bi di xool carrière professionnelle xool jaar-jaar xool dund bi nit ki di dund ak entourage am hors de euh, carrière politique. voilà mbokk internet yi tey lii laa leen indiloon ñi leen di jox dig daje ci beneen numéro incha allah.